jaxeer fay bi day ca la APR di tasee ñaar fi mu ne nag tàmbali nañ sulli ay mbóot APR daal di tas tasar moo ci des bés bi le jour naan man fi mu ne contrôlé parti bi moom mooy xeex bi lobs naan ko déet ak wax ju ñaaw ji bés bi naan kon fi mu ne nag xeexoo ba it ci di nguufaan ci parti bi dina am Amadou Ba ak téeméer boo jël fanweer ak ñaar ci baat yi mo am wane na ni fi mu ne mënees naa jiital APR waaye coow la mooy président Macky Sall mi nga xam ne moom moomu partiam koolu téem ak Amadou Ba fan la tollu wax jànga yéeni bi naan moon ndax la daloon parti démocratique sénégalais du dal APR le peuple quotidien naan en tout cas président Macky Sall mérito koy def attaque yi nga xam ne ñi ngi ko koy attaqué moom Sall ngaari lam tooro burge de mérité wu ko yéen kaay bi naan man manière bi nga xam ne noonee la ñuy jaajëfale président Macky Sall ak la mu defal réewam lépp mérité wu ko la waroon kay fi mu ne moom moo di daal di bàyyi ci xel yi jéego yi nga xam ne Sall def na ko ci fukki at ak ñaar yi ngir joyanti réew mi ndax nag gannaaw ñaari fan ci weeru avril ma nga yootu roñ roñi geneen mission moom président Macky Sall waaye fi mu ne demam gii ña ngi ko ca yekk keteme yéen kaay bi naan man te Sall ci boppam ci mënti waxit mérité wu ko naan man Emmanuel Macron moo ko fal envoyé spécial Sall nag daal di rango daar daar robu envoyé spécial bu 4P gii fas yéene ko doxal l'observateur naan kon waaye su moytuwul partem bi ci xar xareet la daal di jëm l'évidence yéene kaay naan kon bu xaree Sall de ndax nag ay calculam moom président Macky Sall fi mu ne moo yóbbee partem bii li mu nekkee moom Sall sukkandik na sukkandik na ba Amadou Mame Diop du gis pale sukkandik na sukkandik na ba Jomaay fay moo ko war a wuutu moom Amadou Ba nag a lay càmbaral xam ni moo waral dëgg-dëgg ñàkkuk Amadou Ba gi ñàkk koo xam ne foo natt ñaawam weesu na ko te lépp bàyyeekoo ci maire gi nga xam ne moom Sall mere na ko candidat Benno Bokk Yaakaar gi mu njortu ne ab coowal ger daf ko daal di laal waaye tam Amadou Ba ñàkk gi mu ñàkk wane bilan matériel président Macky Sall ak ñàkk ko fësal nekkub erreur am boo xam ne kute na ko pale ba ñàkkub communication boo xam ne taxaw na ci ginnaaw Amadou Bay daal di koy jural lii direct news naan kon en tout cas projet ba rañ Diomaye Faye yóbbu na projet ba nag palais présidentiel kaso la bàyyee koo daal di mujjee ca présidence bu réewum Sénégal maître Abdoulaye Wade la mu ne woon kaso bàyyi yoon wi gën a gàtt ngir yegg palais mooy dëgg te Diomaye Diakhar Faye mii daal na koy firndeel nee na day soppi xaalisu réewum Sénégal bu ko jaree teewul fal nan ko wane na fi ñaari soxna lu mësta am ci réew mi fal nan ko nee na fi Sonko mooy Diomaye Diomaye Sonko fal nañ na di fal nan ko gaayaa ngi koy joxoñ baaraam ak tuuma naan koon moom Bassirou Diomaye Faye aventurier la boo xam ne fa mu nar a jëme réewum senegal ci li mu woote ci rupture lam ñu nar xañ ci stabilité ci réew moo xam ne mësta am jafe-jafe ci dénduk Afrique 24 heures yéen kaay naan konterewul fal nan ko moom Bassirou Diomaye fay bas daal di jël coalition Benno Bokk Yaakaar ni ki taxaw xattar bi ba biir weex daal di nguufaan ci suuf lu toll ci ñaari téeméer juróom-ñetti fukk juróom benn junni ci ay baat yu toftal juróom-ñetti téeméer ñeen fukk juróom benn mu am ko ci Ndakaaru fa amadu Ba amee téeméer fukk ak juróom-ñetti junni yu ñetti téeméer ak ñaar fukk ñett Khalifa Babacar Sall taxaw am fa ñaar fukk ak ñeenti junni yu toftal ñetti téeméer ak juróom benn Pikine Bassirou Diomaye Faye am fa daanaka téeméer ak juróom fukk ak juróom ñetti junni Amadou Ba am fa juróom benn fukk ak ñetti junni baat yu teg le témoin yéene kaay naan kon cib natt képp kottu am na ñaari million baat yu toftal téeméer ak juróom ñeent fukki junni juróom benn téeméer fanweer ak ñaar ci réewum Sénégal téeméer boo jël ci askan wi wote ji juróom fukk ak ñeent yu toftal fukk ak juróom daal dinañ koy sànnil xob ci réew mi lu toll ci juróom ñaari téeméeri junni ci baat taxawee ne ko candidat bii di Amadou Ba Habib Sy ak Malick Gakou ñoo nekk ca cappaandaw la mujj Anta Babacar Ngom nekk ci fukk ak ñeenteelu place ba Walf Quotidien naan ko Anta day daal dina ni saraax ci langu politique gi caaxaan dootu ko fi génne fi mu ne politique gu réewum Sénégal dee su ko wax ba génnee ci Anta Babacar Ngom mooy dëgg laas mel ni ku naan kon li yàlla dogal lii la moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy président bu réewum senegal Marie Khone fay mooy première dame bu réewum Sénégal ñuy xaar Bassirou Diomaye Faye ci mu joyanti système bi jëfee assise yi Quotidien naan kon ña koy xaar mu def lu raw li fi président Abdoulaye Wade ak président Macky def ci réew mi Sud Quotidien naan maan diggante mbay ak souveraineté alimentaire ña cay xaar bu baax a baax njiit lu yees li Bassirou Diomaye Faye critique yéen kaay naan kon ña koy xaarit ca woon daal di woon ni ci réew mi ndax fi mu ne nag ñettamoon Pastef xas leen yekk leen guuta ña ngay roñ-roñi mel ni kuy neexale ak di jege Pastef ba nga xam ne dee su ko woon fréquenté ni ki démb tey jii moom la ñu ñooxu tuumaal leen gépp ñaawteef ci réew mi leen takk leen yóbbu seen kaso boole booleeg seen leader terewul pastef boobe moo daal di jekki daal di jël réew mi seeyal parti politique mu jël réew mi tey nag yéen kaay bi naan maan ñu bëri ña jaaroon ak ñoom foofu ñoo tàmbalee xerewle nag ngir jaxasoog ñoom am l'observateur naan man coow li coow li sonko de ndam li ndam li mooma waaye coow li coow li woon ci réew mi aji saara moom aji ci boppam yéen kaay futur média bi naan man gàddaay na tribune yéen kaay naan kon ak luñ mën a wax nan woote ci réew mi ndax lu toll ci téeméer benn fukki moom la ñu nguufaan fas ko yéene sàkkal député assemblée nationale bi nag coow la moom moo di lan la jëriñ askan wi ba député mi nattal seen bopp retraite goo xam ne ci àlaluk askan wi lañ koy daal di tibbee te mu bari lool huit cent mille député yi war koo jot ngir seenub retraite lan la député yooyee gën a askan wi bay jot koppar googee askan wi daal di toog ndax nag dund gi cher na metti na te askan wi ñoo ko gën a yëg député yi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale fukk ak ñeenteelu législature bi nga xam ne ba bëgg-bëgg askan wi jàddee gauche moom droite da jàdd mosu bu yées bii assemblée nationale boo xam ne ñun askan wi ñoo ko moom bokk ko ñu war ñu faa waxal sunuy soxla coow la mooy ku ca nekk ka la yóbbu nga fa daan waxal soxla askan wi nga xam ne moo leen yónni yàkkam ci leen toog di xaar kenn layalu ko kenn waxalu ko te askan woowee it kenn défendre ko askan woowe la ñu bëgg tey jël ab moomeelam paacoo ko ba di leen utal retraite goo xam ne moo nar am ci réew mi coow la nag mooy assemblée nationale boo xam ne keroog bañ koy dalal di ko teg diggante ay kurpañ moo ca amoon